Ah, orpaillage bi doon euh, problème bu am solo léegi euh, normalement projet la boo ne plan Sénégal émergent moo ko tabboon fu projet bi dafa nekk en maturation maanaam dafa nekk ci saytu bu kawe ci ministère de l'économie et du plan Non lañ ko le bu saytu bobu jéxé ci lañ koy dugal ci budget bi légui dina am ay waxtaan ñuy def ak euh, ñi ko séqal ñëpp ñi nekk sur le terrain autorités locales autorité autorités administratives comme orpailleurs yi pour seet yan matuwaay lañuy jël pour tax Euh, lii nga xam ne dañuy wax orpaillage mu doon loo xam ne day doon njëriñ pour lépp lépp lu ci doonoon ay gàllankoor maanaam ci mbirum environnement ak yooyu dinañ ko jéem a néewal buñ ko mënul dindi lépp loo xam ne da doon doon euh, xaalis boo xam ne kenn du xam fu mu jaar loolu yëpp dinañ jéem a taxawal ay matuwaay yoo xam ne dinañ tax ne lépp li ciy jóge dinañ xam fan la jógee fan la ñëw ak ñan ñoo koy jëriñoo loolu jàpp ne buñ ko tënkee ñun ñëpp dina doon njëriñ bu am solo ci ñi a xam ne ñoo nekk ci orpaillage yi dina doon tamit njëriñ bu am solo ci communauté yi nekk foofu mais ci budget état bi tamit dina am tamit euh, njëriñ lu am solo